مثل منن على mbokk yi tey la alxemes fukki fan ñett ci weeru ndeyu koor ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñaar ci gàddaay yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñaar fukki fan ak juróom ci weeru février ci atum ñaari junni ak nit ak benn fukki fan ak ñett dafa bokk ci lim yu fatt yi kon am na luñ ciy tere ak wattandiku mooy lu mel ne ko ca watu wala ko ca daloo wala ko ca takk ab sëy wala ku ko ca yeggale wala ko ca sanc kër wala ko ca tàmbali dara ak yu mel ne ñoom ñaanu bis bi maa ngi muslu ci waati yàlla yu mat ya ci aju lépp loo xam ne bind na ko aawdu bi kalimatillahi tammati min charri ma xalaq xadisu bis bi jëlee nañ ci abi hurayra yàlla na ko yàlla gërëm mu wax ne am na waaju ñëwoon ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yow yonente bi yàlla bi biig day daje naag métit wu tar ci jiit ju ma fettoon yonent bi sallallahu alayhi wa ne ko bu fekkoon ca ngoon sa waxoon nga audu bi kalimatillahi tammaati min charri ma xalaq kon jiir ji du la lor xadis bi muslim moo ko nettali waxtu julli yi suba waxtu dana tàbbi juróom benn waxtu wu tegal fukki simili ak benn tisbaar fukki waxtu ak ñett wu tegal ñeent fukki simili ak juróom ñaar takkusaan fukki waxtu ak juróom benn wu tegal ñeent fukki simili ak juróom ñaar timis fukki waxtu ak juróom ñeent wu tegal fukki benn gée ñaar fukki waxtu wu tegal ñaar fukki simili ak juróom ñaar loolu mooy waxtu julli ci Touba ak li ko wër bu fekkee ni ko Touba soo ko féetee penku ñaar fukk ak juróom-ñaari kilomètres ne wàññil benn simili soo ko féetee sowwu wala gànnaar wala saalum téeméeri kilomètres yu ne yokkal benn simili jant bi dana fenk juróom-ñaari waxtu wu tegal ñaar fukki simili juróom-ñeent di so fukki waxtu ak juróom-ñeent wu tegal juróom-ñaari simili yàlla na nu yàlla nangul te nangul leen amin sakartuhu lian qad sahani liwatani bihi nafa